bismillahi rahmaani rahim Papa Songo Diop député maire de la commune de Ngeko tête de liste département de Mbour comme ni ma ko waxee léegi rek wax naa ko ci wax naa ko ci sociaux yëpp euh, nee leen parrainage bi dafa am solo lu tax mu am solo danga nga koy wax lan la d'abord moo gën nga parce que sénégalais yi ñoo ñuy déglu bu ñu bi lan la ñu expliqué ko parrainage lan la mooy tey askan wi nga xam ne dañ doon sonn ci. na permettre aussi. ci walu investissement wala xaw ñu mëna investir ci xaalis yooyu ñu don frais muy 18 milliards yi nga xam ne frais nañ ko ci li nga xamantene mo jëm ci walu élection yi passé parti bu ñu jox 383 millions yi nga xamantene ni amul fenn fu mu feñ lu dul ab yàq xaalis deux mille sept cent tonnes de papier yoo xamante ne laxasu caaf lañ koy blocage ak jaay dooleeg yëngal projet de loi bi incha war bi dana jàll parce que lu tax muy jàll du question ko dafa danoo bëgg lu neex Macky Sall wala danoo bëgg lu neex Moustapha Niass mais danoo bëgg lu neex sunu askan muy askanu Sénégal kon nag maa ngi leen di wax ne proposition bi nañu indi xalaat boo xam ne pourquoi parrainage bi du jàll ñun wax nañu pourquoi mu war a jàll mais ñoom waxuñu pourquoi du war a jàll lu dul jaay dooleel nangam nangam expliqué taxaw bloqué te ne teel ne wax nanu askan bi déglu ñun tam ñu wax askan bi déglu ñu bañ ñu nekk ñu bàyyi askan bi nekk juge loolu daal laa ci am na ma ci wax